benn liir buy door a juddu la ñu daal di fekk ñu sànni ko ci ab poubelle moom sax dafa daal di jot a ñàkk bakkanam loole mi ngi am niki démb fële ca Parcelles Assainies mu nekk nag mbir boo xamante ni ña faree foofe ca Parcelles unité 26 ñu ngi koy naqarlu bu baax a baax waaye itamit di ñaaw lu jëfin yi nga xamante ni moom la xale yu jigéen ñi di def heure bu ñu juree doom rek di ko sànni. loolu nekk na lu metti nekk na lu diis yaakaar naa ni ëmb neuf mois metti na xeetu metti boo xam waroo jur sa doom di ko sànni non seulement souvent damay dégg genre rumeur yooy ay nikki jur na doomam sànni non seulement doo comprendre daal parce que xale ak nu mu mel sensible ku xamul dara nga jël jàpp sànni ñaaw na xeetu ñaaw boo xam ne man daal rafetlu ma ko daal maa ngi dégg rumeur laa ko dégg nii ñu naan 26 am na xale bu ñu fi sànni affaire yooyu noonu mais daal ñaaw naa ko trop trop trop trop. ah loolu de moom ñaaw na métti na moom si jigéen buy jur moom parce que dama xam ne nu métti métti moom doom moom kenn du ko sànni parce que xamoo ku muy njëriñ suba waaw te yow mi ko jur di sànni ak méttit boo si daj métti na moom lool pour sànni loolu moom naxari naa dégg si ñun jigéen ñuy jur moom waaw. parce que am na ñoo xamante ne amuñ doom ñu ngi ñaan yàlla pour yàlla may leen doom yéen mi mu yomba ci yow doom ëmb nga gis nañ la boo juree téyel jarul sànni doom kenn du ko sànni ba tey ñoom ñii ñu ngi xamle ni ginnaaw jigéen ñi góor ñi itamit am nañ ci part de responsabilité ndaxte ñoom ñooy daw seenub responsabilité ba tax na sax xale jigéen ñi du ñu am courage daal di téye seen doom. dama koy ñaawlu tamit bu baax a baax parce que nit boo nekkee ak moom mu jëlee ci ëmb. yaakaar naa ne war nga ko mën a accepter parce que nit ku nekk loo def xam nga ko loolu moom dama koy ñaawlu bu baax a baax di ñaaxaat xale yu jigéen yi pour ñu téye seen bopp tamit benn côté lépp ñoom la parce que nit ki amul lu dul dignité am te sa dignité mooy lan nga jàpp sa bopp denc xam nga mais kantaaka nga dem saam sa bopp ci àll bi ba jërë ci am ëmb retourné waat jël doom ji sànni dafa ñaaw daal. ñooñu moom. seen ay débat moom ku ko wax moom feebaraale ci góor dañuy bëgg utiliser jigéen bu ëmb feeñee ñu ne duñ ñoom loolu lañ war a bàyyi jigéen ëmbal ko bugg a buggaam la toppoon bu topp sa bugg a yow defal la loo xamante ne dalaa eh, satisfay daal ah su la satisfayé ba pare nga ëmbal ko bu ne yow la nga ne ko du man loolu dafa ñaaw góor yi nañ bàyyi loolu parce ñooy dugal des fois jigéen yi ci loolu parce que boo gisee kii jur ba pare sànni daa ñaa papa doom gi amul baay te loolu métti na nga biir ba pare gisoo eh, bàyyi xale bi dafa métti parce que xaste bi day gën a bari. bu ñu sukkandikoo nag ñuy yeewoo foofe ca parcelle unité 26 bébé bi nag ginnaaw bi ñu ko fekkee mu faatu moom ñu ngi ko daal di woon dugal ci ab sac plastique daal di koy muur li nga xamante ni rek moo di sëru rabal boo xamante ni sax dafa xaw a bees waaye nag polis ñëw na fa ubbi na nag ab la ngir xam ana ko def jëf ju ñaaw ji.